Sidi Usman ki ala la ila la la ila la Sidi Usman wa ila ila la والزمان ويبا إله إلا الله لا إله إلا سيد الأزمان ويبا إله لا إله إلا لا إله إلا ليس لبالي Usmaan kii yàlla la dinaa la way ba dee daa la kan ba dee dinaa la baal macha allah jëmu yaa ngi nii xol yaa ngi nii dinaa la baal

لا لا باي وإنك لا لا خلق عظيم يلا كنجك تك كوكوي برهاما وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم يلا كونك تك كوكو إبراهيم الله لا باي الله الله الله الله باي الله الله باي مودو بايو سيارنا هلا الله ألف صلاة وسلام على الحبيب سيد الكيان حمدا لربي على اللقاء أو فرازي من ذي الأوان حمدا لربي على اللقاء أو فرحاز لي من ذي الأوان بدر البدور والقرم ثاني بدر البدور بدر البرور فيد الفيود والقرم ثاني جسال بايو زيار نجولا الله الله باي الله الله ñu wax jërëjëfee Baye Ousmane. jërëjëfee Baye Ousmane. ñu wax jërëjëfee Baye Modou Gueye. ñu wax jërëjëfee Baye Modou Gueye. ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant suñu sëriñ Mawlaaya Seydi Ahmed Tidiane mboolem gërëm ne ñu koy gërëmee wa ahmadu sirru zaati wa zaatu sirruha tasawala idraki jaldi wahina bi kanzatil aw kuntu qabla taarufin taxarraka min za sirri ma kana sakina muy Mawlaya Cheikh Ibrahim wa amma baat ñu ngi nuyu xulafaaw Cheikh Tidiane yi nga xam ne ñoom ñoo taaral jotaay bii nga xam ne Baye waxoon nañu ne muazziman li ahlihi jamian la siyamal xaas kun mutiyaan kon balaa def dara si bi dañuy jox Baye Hamza ibnu Baye Ousmane dégg nga mu tijjul ñu ak alquran su paree ñu wéyal bisimilah sëriñ bi.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 إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم والضحى والليل إذا سجى ما وضعك ربك فيعطيك ربك فترضى ألم يجدك يقينا فآوى ووجدك الضال وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل بك فحدث صدق الله العظيم الفاتحة kon su ko defee rek ñu jox Baye Mbaye pour ñu bañ a lekk temps bi lépp loo xam ne dañ ko fàtte bu micro bi ñëwaatee rek ñu jàllaat ci loolu kon Baye Mbaye bisimilah. alhamdulilah ñu sant yàlla ñun ñëpp ñu wax jërëjëf Baye Niass ñu waxaat ñun ñëpp jërëjëf Baye Niass ñu dellu waxaat ñun ñëpp jërëjëf Baye Niass jërëjëf Cheikh Sane Deme jërëjëf Baye Dramé jërëjëf Baye Ousmane ndax dañuy wax ne su lëg lekkee aloom na ko gërëme coy jamaa bu foor bii suñ demee ba mën a jot ci moom ñooñ ñu jërëjëfal ginnaaw yàlla wax dëgg ñoo tax ñu jot ci moo tax fuñ mënti toll dañ leen di bakk ren kañ ndax ñoom ñoo ñu indil juma juma bu foor bi muy Baye Modou Gueye ñoom ñun ñëpp ñu wax jërëjëf Baye Modou Gueye. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di wax ne Baye Modou yal na yàlla guddal fan yi. Baye Modou yal na yàlla guddal fan yi. Baye Modou yal na yàlla guddal fan yal na yàlla may la wér ndàmb la loo xam ne yërmande kese la ñeexal ñu ñun ñëpp wala xaalam bi yëpp ay kaddu la yoo xam ne kaddu ngër mandel yoo xam ne mu ngi bàyyeekoo ci taalibe yëpp waaye ci buntu ban muy Baye wax moom bi nga xam ne wax dëgg yàlla mooy baabul xadra Baye wax ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal say fan te may la ci barke yonent bi nit ku oyof la ku baax la ku am dal la te borom xam-xam la te ku bëgg Baye Modou la wax yàlla yàlla guddal ay fanam li yëpp teraanga la rek cër ku ko amul rek doo joxe teraanga wax dëgg yàlla borom cër la kon sëriñ bi ñu lay ziar beneen yoon bu baax a baax waaye Hamza ñu lay ziar di la ñaanal te di sàkku nga ñaanal ñu lii bu nekk loo xam ne dafay sax bu nekk loo xam ne dafay dem ba sëriñ bi danañ ko jox ay caabi oto ay caabi kër taalibe lépp luñ bébét rek yàlla defal leen loolu bëgg nañ dem ba jataay bi ñuy takk ay milliards di ko jox mbokk taalibe yi di ko def bëgg nañ loolu lépp loo xam ne lu baax la rek nit ku baax mu ngi koy yeewoo di ko defal kilifaam wax dëgg yàlla ñu ngi sàkku di taataan loolu ci soron te ñaanal ñu loolu yàlla tax ci barke yonte bi ñu koy def ku ànd moom jamono ju nekk da nga ñaanal ñu bàyyi Moodu yàlla guddalay fanam sëriñ bàyyi Moodu ñu ngi sàkku nga ñaanal ñu yàlla guddalay fanam bu baax a baax may ko wér soo ko ñaanee rek mu am parce que doom mooy mbootu bàyyam sa bàyyi fi man nga fi rek ñu ngi lay diis loolu ku nekk boobu tamit kilifa gu oyof te jikko yi nga xamante ni sëriñ da ngay jëlee ci yàlla mooy day bëri sutura day jéggal moo tax ma ne sëriñ bi est ce que am na ay taalibe ndax bu dee sutura am na ko de xam ngeen xam naa. jubunu de ñàkk a jub bi mooy ñun ñii ñoo ngi ci lu ñu neex suba ngoon guddeeg bëccëg te moom moo ngi ci ñun suba ngoon guddeeg bëccëg est-ce que dégg ngeen wax ñun ñoo ngi ci suñu bopp suba ak bëccëg moom moo ngi ci ñun suba ak bëccëg te saa su nekk taalibe bu defee bu ne weng mu jël ko teg ko ci suuf suturaal ko bu ko taalibe tooñee mu jéggal ko xam nga kon am nañ seen ñaari ci kongo mu ni bu ci topp bu ci topp bu ci topp mooy nee na sëriñ day dëggu day dëggu ba pare di joxe joxe ana fii bàyyi mu du ku mu joxul yëkkati sa loxo waaye ku bàyyi mu jox ba mu yëg ni jox na ko yëkkati sa loxo kon nañ dellu waxaat jërëjëf Baye Modou Gueye xam ngeen jox dafa bëri façon jox bokk ni ñu jël alal jox la waaye dafa weesu jëf alal jox xam ngeen ni jëmu ji toog alalam dakaa bokk ak ñun waaw wala déet kenn feebaru fi ba mu ba faju la te du la laaj dërëm ku fi feebar mu taxawul la ku fi jaaxle mu taxawul la ku nekk ci naqar mu taxawul la ku nekk ci mbégte mu taxawul la. bal ba dugg ñu nekk ndaw am ay fukki at ak ñeent nekk ci xatara bi mu ni tette dina yar ci lislaam dina yar ci tarixa dina yar ci faylu bal ba dugg nu màgg war a jël soxna ñun ñëpp mu takkali du soxna waaw ñoo gore gore gore gore takkal nu soxna du suñuy doom waa yéen waa yéen waa yéen kii lan la nu dese kon jox nanu bu dee yàlla jox nanu bu dee yàlla jox yonente bu dee Cheikh Moutia jox nañu fii kun fi peese ci xam-xam lu la laaj ci kaw ba nga tontu ko waaye di suñu jàmbaar kii ya jeex ci yàlla moo tax kii la sëriñam gërëm moo tax mu rogalaat ko ci ñun moo tax ma naan moom dama koy yërëm ndax est-ce que am na ay taalibe est-ce que am na ay taalibe ba tax na sëriñ def discours bu gudd ndax ay kilifa rek a fi toog li ma bëgg kay mooy mbokk taalibe xam nga yéen yéen a waxal seen bopp ni Baye Modou am na lu mu def ci yéen Baye Modou ñoo ko war a siyaar képp koo xamante ni am nga soxla billahi lazi a gis balaa la def ci kaw ba suuf melokaanu yonent teg ñëpp xam ne ne balaa pay yonent bi pay kenn fa jëriñoo waaye pays yonent bi dañuy jëriñoo ak xatu Muhammad yaa moo ngi nii bu ñu bëggee jëriñu mbokk taalibe maa ngi leen ñaan nga fekk si ma ci addi bi ma war a jox sëriñ ñi joxeegul ñëw leen joxe ñu jëppal mbir mi sëriñ bu kenn xeeb gis ngeen maa ngi wax taalibe waaye da am lépp de ziar ci wàllu yàlla amul lu ko gën a màgg te nag dañuy ziar bëgg yàlla nangul lu suñu ay soxla kon maa ngi leen di xaar mbokk caabi ñëw leen xeebu ma dara ah wala na tuur laa bëgg bis na ñëw. danoo am ay soxla lu bëgg nga waraloon na ko. maa ngi doon wax sànq sëriñ bi bëggatunoo feebar donte ci jaamu yàlla la waaye bëgguñu ko ndax neexul. ci xadara bi sëriñ ndax aarif gor la gor gor ñàkk nag gor moom la donte ñun ay jurit lañ. moo tax ñu ngi ñaan nga taalibe lu wér wér wér yàlla musal mboolem ci seytaan ndax mbooloo bu la yéene la mbooloo bu am yéene ci yow la waaye ñu ngi ñaan yàlla yal yàlla tënk ba du am ba du ci mbooloo bii sëriñ bi sëriñ bi ñu ngi ñaan alal ñu ngi ñaan kattan ñu ngi ñaan gudd fan ñu ngi ñaan yokk ba yëg ko ba yëg ko ba yëg ko ñoo ngi lay ñaanal yàlla mënuloo jël nu micro te du la ñaanal yàlla yàlla guddal sa fan. yal na yàlla sàmm la yal na yàlla aar la yiir la Baye Modou yal na yàlla musal la ci seytaan yal na yàlla musal la ci cat ci lam ci pexe noonu li nga bëgg ci mbooloo bi yal na yàlla mott la ndax dañuy waxtaan te xam naa xam naa li sa yéene ci suñu mbooloo yal na yàlla mott la dañuy gàttal foofu ñu ngi jégalu bu baax kilifa yi nekk fi tudduma leen waaye xam ngeen ni wax ji waxu xol la moo tax waaye moo naaj mboolem kilifa bi fi nekk maa ngi nekk nuyu di leen asalaamaaleykum wa rahmatulah rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul waxlul uqdatan min lisaani yafu xawli ñoo ngi sant yàlla bu baax wàññil éco bi di julli si yonent bi sallallahu wa sallam di sant Mawlana Cheikh Ibrahim ñoo ngi sant suñu sëriñ Baye Ousmane yàlla na fi yàgg te wér yàlla dolli ñu ci leeram jox ñu suñuy booleem càkkute di ndokkal sang yu góor yi sang yu jigéen yi waaye di jiital si néew bi ki nga xam ne moo waral jotaay bi wala di si jiital suñu sang suñu doomu sang muy Baye Amza. Dieng Sala di doomu sëriñ bi di mbooti sëriñ bi di ku bëgg xadra bi waaye di ku bëgg ki nga xam ne moom moo représenté sëriñ bi fii ci Dakar muy moo Modou Gueye moom bu xasee nekk Dakar am sa képp bu ko bëgg a gis rek si Baye Modou Gueye foofu rek ngay ñëw ngir gis ko ngir bëggeel nga xam ne am na ko ci Baye Modou Gueye ndax Baye Modou kilifa la goo xam ne dafa boot ñëpp. di ku laabiir ndax damay wax ne li Baye wax ci sëriñ noonu la war a mel ngir nga mën ko jox sa bakkan bi qualité yooyu da nga gis ne Baye moo Gueye moo nekk ci moom ndax wat lu murabbiyan wat la wax xabiran nasiyan kaamila irfanin imaman salihan maliku nafsaka fala tadabbir booy wut sëriñ na wut sëriñ boo xam ne borom xam-xam la mu nekk koo xam ne dafay peep xam-xamu sharia dafay peep xam-xamu xaqira mu nekk wut sëriñ boo xam ne ku laa biir la sëriñ bu mat sëriñ bu jub te qualité yooyu yëpp dëgg-dëgg mu ci Baye Modou liggéey laa biir am ci mbokku taalibe yi ci ay mbokkam ci yàlla ci ay xaritam dëgg-dëgg jéggi na dawe kawe na heure bu ma ko ooyee na ko Baye Modou fan nga nekk mu ne maa ngi kër muqaddam diw maa ngi kër mbokku taaliba diw loolu dara waralu ko dulul yitte bu kawe bi nga xam ne am na ko si njaboot gi ndax yu bi sallallahu alayhi wasallam moo ne kii sang mbindeef mooy ki leen di liggéeyal te Baye Modou loolu wane na ko bu nekk moo ngi sol dàllam di nemmeek njaboot gi naka lañ toogee ndax woppuñ ndax amuñ jafe-jafe ci seen dëkkuwaay seen makkaan yi heure bu nekk da ngay gis ne Baye Modou du tëdd du nelaw du noppalu chaque fois rek moo ngi sol dàllam di wër dégg mbokk yi dëgg-dëgg loolu rek moom mooy sëriñ kon sëriñ bu mat a ngi nii sama ànd ak moom jiitu na jiitu na faydu Baye Daouda mu ngi doog a ñëw di ñoo ngi koy ndokkee lu baax. di ko ziyaare di rafetlu bu baax teewaayam si jataay bi nga xam ne ñun ñett ñi li ñu boole lu yàgg la depuis ba ñuy nekk atelier di jàngi métier ci la ñu Mawlana Cheikh Ibrahim boole ci am ñu ànd tamit jamono jooju ànd bu rafet. kenn ku nekk jox cër moromam ba tey ni ñu Mawlana Cheikh Ibrahim boole ñu ñëw dikk ci faydu nga xam ne tey Baye Modou kollereem bii di Baye daa bokk na si ñi nga xam ne moom moo ko dugal ci faydu bi bam am mbootam jawku ak diraaya kon tafadal Baye Daouda di la wax dëgg-dëgg bés bi yow rek yaay borom ndax mu nañ ne Baye Modou tey bu demee ba naan si mbootam jawku bi tey mënat boobu moo naa Cheikh Ibrahim ci yow la ko jaarale gannaaw ba nga xamante ne layee nga ko biir mbootam faydu bi ba yàlla def kalim boobu noonu mu dugg ci xolam ba nga yóbbu ko si sang bu tedd boobu muy Baye Ousmane mu tarbiye ko ba moom fatul akbar gannaaw gi sëriñ bi doxal ko ay séeróom ba mat ci yàlla mu ne ko nag nanga dellu dakaar ngir dajaleel ma sama doomu ruux yi bi mu ñëwee Dakar Baye Modou mission boobu nga xam ne moom la ko sëriñ bi jox ci ndigal jërmeelul ndax tey fépp moo ngi yëngu foo dem ci Dakar mu xat mu Baye Ousmane moom fa amee mbooloo di tàggat ay ndaw di leen yóbbu si xadaratu baax li rahmi ilahina tëjjili boobu nag dëgg-dëgg jegewul fenn dudul ci jëmm ju baax barke ji nga xamante ne moom mooy bàyyi moo Modou Gueye kon ku jëri ziyaare la ndax ziyaare ñaari maqaama rek la mooy yow mi nga xam ne yaay ziyaare waliw yàlla bi benn nga manqué nga dem fekk ngay ziyaare mu nekk ku mat mu tëbb la yéegal la si maqaama ziyaadatu wa ilaa moom bi ngay ziyaare mu nekk koo xam ne ku manqué la yow nga nekk ku mat nga tëbb ko yéege ko ci ay maraati bi kawe moo tax ñu ne ziyaare amul benn pertement ñaar yëpp ndollal la ñaar yëpp yéeguwaay la alhamdulilah ba ki ñuy ziyaare dëgg-dëgg ku mat sëkk la kaamilan la irfanin waaye imaaman saaliha la kon nag lan moo war mooy maliku nafsaka fala tadabbir nañ ko jox suñu bakkan yi nañ ko jox suñu bakkan yi zahir yi mooy suñu alal yi nañ ko ko xitmaal ndax loolu rek mooy tax taalibe bi ñàkk gi ñu jàmbat dara du tax ñàkk googu mën a dëñ lu dul suñu alal yi su piis yi rafet yi kër yi rafet yi oto yi rafet yi taalibe bu fekkee da ngaa bëgg a jëriñu ci maratib yooyu na nga fexe nga jaayante ak sa sëriñ nga xitmaal ko ci buntu boobu ngir ñàkk googu ñuy jàmbat mbuur mu mu war a de kon kon jëmm ji ku jar a jox ay piis yu rafet la de ndax naasihan la kaamilan la ku jar a jox ay caabi oto la ku jar a jox ay million la ndax liggéeyal na sang bu tedd sang bu barkeel muy bàyyi Ousmane Dieng ba sëriñ bi gërëm ko tey ne ko faxruj man raaka raani génnal yow Baye Modou képp ku la gis gise la waaye man la gis moo tax jeg rek la gis si jëmm ji moom rek lay doxee mbootam rek lay feeñal lu nàmp ci moom rek heure bu nekk loolu lay gall ba tax xol yëpp bëggu ko Baye Modou mun naa ne amul noonu mu xaddam boo gis ci pays bi buñ ne Baye Modou mu ne xam naa ko lan moo ko may moo yitteem taalibe boo gis ci faydu bi rawatina Dakar boo ne Baye Modou mu ne xam naa ko lan moo ko may muy liggéeyam bi rafet nga xam ne defar na dégg nga ay téere li ñu waxoon Baye Ousmane ne ko ndax bind nga téere mu ne moo ne bind téere de su ma neexoon fii ma taxaw ma bind fi téere boo xam ne du am benn araf buñ ci jubbanti waaye nag man sama téere mooy xool leen génération yi ma defar xool leen muqaddam yi ma defar kenn ku nekk rek barab ba mu nekk mokkal na ko kenn ku nekk barab ba mu nekk exemple la fa roy walla ngeen a bàyyi daawuda yokkal faas mbaaw dëgg-dëgg mokk na boobu di roogaat di dox ci ay manding di dox fan la naanee loolu kan moo ko loolu muy bàyyi sumaan nga dem jaxaay ñu bàyyi amadou kan moo ko tëbb mbot boobu muy bàyyi Ousmane gannaaw ba mu ko jaarale ci bàyyi Modou Gueye mii mbot boobu noonu bàyyi Modou def ko ci bàyyi amadou tey jaxaay moo ngi jax kon tajil yooyu yëpp fu ne muy yëngu ci Dakar nañ wax ñun ñëpp jërëjëf Baye Modou Gueye mi nga xam ne loolu mo moomu sëriñ bi ci moom la ko jaaralee kon sëriñ bi yow ku jara ñaanal la ku jara ziyaare nga waaye danga nekk sëriñ boo xam ne dangay ngay sànq taalibe ndax mësxër bi bi ngay feeñal ci mbokku taalibe yi mësxër bu doy waar heure bu nekk ma ne la 16 bi ñu la teg 16 bu nga matee bu boo matee sëkk nga kon na dara yu bëri dara yi fu mu rafetee yéen taalibe yi da ngeen njëkkante ci loolu ndax taalibe mooy def sëriñam sëriñ ndax bàyyi moo de heure bu nekk moo ngi si 16 heures taalibe heure bu nekk moo ngi nëbbu boppam bëggul ñëw di dara kon yéen a ko war a forcer maqaam boobu di ko xottil ay dara yu rafet bu jetaa yu mel ni amee ngeen teg ko tegal ko 16 boo xam ne da ngeen koy séen sa kaw. ngir lan da ngeen bëgg a yëkkatiku kon heure bu nekk dee leen yëkkati dégg nga sëriñ bi muaziman li ahadihi jamian la siyama alqaasatu kul mutia dee leen màggal seen sëriñ si maadaama xayruhum bi qalbin laa yunal mahrifatu mawla aqulu birtija te fekk sa xol bi kenn nekk ci kudul sa cheikh mu rabbi jotagoo sa càkku def ci kon seen xol tamit ne seen waasita nekk te sa waasitu mooy kan mooy ki la àggal ci pay yàlla bi kooku moom mooy sa bunt kooku mooy sa Baye Ousmane kon Baye Ousmane Baye Modou jaaraama am nañ si yow kontaan lool nit ku kóllëre ga nit am yërmande ga léegi la sax nga dégg ñuy problème waaye dootu amati jàmm tant que problème yooyu dégg nga saafarawul ngir lan laa biir bi nga xam ne moo nekk ci yow ñoo ngi lay ndokkeel ci loolu jamono ji nag jamono ji tumuranke la ngir taalibe mën a jëriñu si sëriñam ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko waxoon sa yaati zamanu al aqidu fihi bi diinihi fal qaabidu ala al jamri lil amili fihi ajrun xamsiina mu ne jamono ngi ñëw képp ku téye sa diine yonent bi nee yaa ngi mel ne ku téye sa xalu safara mu waaye jamono jooju képp ku ci góorgóorlu ba jëfee sa diine yonent bi nee na am nga fayam juróom fukki saxaaba ñoo ngi ziare bu baax suñu baay ji nga xam ne dégg nga wayjur la ci Baye Modou Gueye ñoo ngi koy ndokkeel bu baax a baax yonent bi bi mu waxee wax jooju saxaaba yi ne yaa rasulullah naa aw minhum ndax jamono jooju nga xam ne ku si téye sa diine jëfee ko am nga pay juróom fukk saxaaba ndax loolu ñun suñu jamono la yonent bi ne leen balmilkum du yéen waaye loolu sa aaxiru zaman la te amul sikk na mooy jamono ji nga xam ne tey gis ngeen lu xew ci àdduna bi le bi tey dirigé nañ ci àdduna bi tey góor jigéen bari na formation yi bari nañ dégg nga rey bakkan yi bari nañ dégg lu ne tey ngay gis dégg si si zaman bi kon nag naka la ñuy def ba mucc ci jéngi-jéngi adduna bi foofu rek ñu uti cheikh murabbi ndax mu rab boobu rek moom moo la mën a tàggatal sa bakkan boobu nga xam ne moom mooy nekk li lay jañax heure bu nekk si musiba yooyu noonu kon gannaaw ba ngeen muccee ci jamono jooju tey te mooy crise yooyu nga xam ne tey jamono ji moom lañ wanteel kon na ngeen góorgóorlu ndax yonent bi wax na leen seen diine daf ngeen ko jàppee yi ngeen am payab juróom fukk saxaaba kon nañ góorgóorlu jàpp ci diine te jàpp suñu diine nag mooy lan mooy tey jëmm diine ji mooy kan mooy al ulamaaw warasatu warasatul anbiyaa yi borom xam-xam yi tey ñoom ñooy dëgg-dëgg. diine mu yi màggal leen teral leen di penc si ñoom barke ngir ëllëg ñu nit seen mboot boobu mën a rogalaat ñun bañ nekk ay exemple wa abruzil jiidi jadidi misaala génération yooyu nga xam ne bàyyi njoon na leen ne danañ nekk ay exemple dara du tax ñu egg ci mboot boobu lu dul ñoo koy xencoo suñu sag yi nii kon Baye Modou Gueye dëgg-dëgg kontaan nañu bu baax a yàlla saxal ziyaare bi aboy ah, Boustan bés benn buur bu mag dafa dem ziare dégg nga bi mu ñëwee fekk fa góor gu màgget buur bi ne waa lan ngeen xam ci ku tëdd fii muy Abou Zi góor gu màgg googu fekkoon na jamonoy Abou si mun de man de mun naa seede ci ay waxam ci jamonoom daan na wax ne si jamonoom képp ku ko gis. liggéeyal ko yow sa yaram araamal safara texe nga te danga nekk ku barkeel sa jamono danga nga nekk nekk kuy dimbale ko sama mbóot si si zaman ak ci ci rëy bu gannaaw gi buur bi ne ko waaw xanaa moom moo gënoon yonent bi sallallahu alayhi mu ne ko lu tax nga wax loolu mu ndax yonent bi sallallahu alayhi wa moom mooy sànq ñëpp te Abu Jahal gis na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te tey moo ngi naaru jahannam góor gu ne ko Abu Jaal bu gisoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëgg-dëgg nit ku tedd lay doon waaye moom jëriñ mu Abdoulahi bi la gisoon ba tax mu nekk dégg ku perte kon dëgg yonent bi sallallahu alayhi wa gis ko si zaatam bokkut te nga gis ko dëgg-dëgg dégg ci wiraasam te wiraasa yonent bi képp koo gis rek. dëgg aji yërmande nga aji texe nga góor gi ne ko Abu Jahl moom gis ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye jërmu Abdullahi bi la gis kon foofu dafay dëggal maqaama Abu Yazid Bustaan si ne am na ci ay gaa yoo xam ne képp ku leen gis texe nga képp ku leen liggéey texel nga kon soo bëggee jëriñu da ngay fexe nga liggéey te ngeen bàyyi triche bi te taalibe bàyyi transiment bi te ñu bàyyi njaaloo gi maanaam li ci ëpp ci taalibe léegi dañuy njaaloo loolu maa dem koy wax taalibe day yem ci sëriñam loolu bàyyi moo ñu ko jàngal ci jaweer saay taalibe bi bu demee ba raw sëriñam mook sëriñ bàyyi nee na taalibe bu ma raw nañ ànd seet sëriñ bu ñu raw loolu kañ laye loolu du gaaw de <laughs> da ba raw bàyyi ba pare ànd ak moom wëri tey nag taalibe yi ñooy uutal seen bopp sëriñ dañuy dem fee toog benn mu xadam wax sax wax boo xam ne benn Moustapha benn niveau bu xaw a kawe la boo xam ne xëy na sax seen sëriñ wax na ko mais dégguñu ko ñu bàyyi ko fa naan ah sëriñ bii moo wax naan ko loolu ay rëq-rëq la yoo xam ne mu ngi am ci biir taalibe yi waaye nag euh, macha allah euh, kii li wax man daf ma daane moom mii Cheikh Ibrahima mi lu am solo la wax taalibe nii lay mel taalibe ci boppam. Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu wax na nee na taalibe mën naa yéege sëriñam ci maqaama Cheikh Tidiane waaw taalibe bu ko neexee mu yéege sëriñam ci maqaama Cheikh Tidiane bu ko neexee mu yéege ba maanaam bi maana bu ko neexee mu yéege sëriñam ci maqaam Mawlana Cheikh Ibrahim moom la Cheikh Ibrahim def kii nu mu tuddati euh, Seck borom sant wu naqari loolu la wax mooy seen Seck ah Seck dafa jël sëriñ bi yéega ko ci maqaam maqaam mu kawe te pourtant nag sëriñam yegg na ci maqaamu muy Baye Modou léegi luñ bëgg lan la luñ bëgg lan la toog fi di taawil yenn taawil yu sori yi sax loolu noonu daanaka ay taasibiyaat la rek xëcc taawil la rek waaye li am solo mooy taalibe bi bu bëggee jëriñu na topp sëriñam sànq wax nga ko Baye dafa la wax mu ashiman li ahli jamia waaye nag laa siyama rawatina nag alxaasa xusoosiye bi la yàlla jóg bàyyi ne kun mutiyon topp ko màggalal ñëpp sëriñ sëpp màggal leen ndax li tax Mawlana Cheikh Ibrahim lu mu doon wax daawul wax sama taalibe yi de da doon wax asaabu Cheikh Tidiane ñuy laal taalibe Cheikh Tidiane ñuy laal waaye dina sama taalibe waaye loolu nag day def tawaatu xam ñi xam yëpp xam nag bàyyi day def day wàcc waaye torox lu bàyyi bàyyi kawe na man nee naa leen bu fekkee ne bëgg nga tawaadu bëgg nga toppee bàyyi ñëpp doy na ci exemple ñaareel ba jëm doy na ci exemple ndax li tax jëng dafa màggal sëriñam jëng lu am ci sëriñam la ko amee jël na mboolem ëdëb al ëdëbu ëdëb yaa saa saalif fa innahu baabun li kulli saalif yar ak teggin yar ak teggin yow mi bëgg yow mi bëgg a jëriñu ci pay yàlla bi màggal na sëriñam muy muy muy kii Baye Dramé Baye Modou màggal na na topp na jeng tarbiyu ko mbooleem jeexital yi def na ko ci suufu Baye Ousmane ba tey mu am lim am ku toppiwul nag duñ la kamaatu dinu tu daanu kamaatu umalu tuju sa kamaatu umalu tuxsat loo leble lañ lay fay loo ji ngay góob loo góob ngay tonu loo tonu ngay jëriñoo kon fexe leen ngeen góor taalibe yi ngeen topp Baye Baye Modou Baye Modou baax la macha allah wala yàlla la. li Cheikh Tidiane waxoon ne wa min niyyati farax ila jamil xalq

jërëjëf Baye Ousmane jërëjëf Baye Ousmane jërëjëf Baye Ousmane Dieng ñu ngi yàlla ñu ngi ci yonent bi sallallahu ngi ñaan gërëm de yàlla wàcc ci ay xalifaam nuyu jaam yàlla yi fi teew yëpp di jiital nuyoo suñu doomi sëriñ suñu xarit suñu soppe Baye Hamza Dieng ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla dëgëral taxawaayam di ko ñaanal yàlla yi tamit képp waajuram bëgg àggale liggéey bi yàlla na bokk ci ñu koy àggale fa soob yàlla ñu ngi nuyu Baye Modou Gueye di ko wàccee wàccuwaay di ko yàlla wàccee di nuyu Baye Moussa Diagne seyru ilallahi dox jëm ci ba àgg ci yàlla dëggalal ko li mu bëgg ci bépp jaam mooy tawhid tawhidu zaat tawhidu sifaat tawhidul asma tawhidul afal sa xayaat yëpp nag nga def ko ci seyru ci biir yàlla dox ci moo tax may gii tey yombut la da nga nekk doomi sirru te borom xam-xam yi wax nañ ne alwaladu sirru abihi suñ ne kuy baayam ñu ne baayu Ousmane Dieng sang bu tedd boobu jaam yàlla bu kawe boobu ko nga xam ne kaamil la mu kammil la ndax nit dana mat ba pare te du mën a matale. nit dina mat mën a matale ci fànn yeneen fànn yu gump waaye Baye Ousmane kullu fa kullu fa kullu matal na matal na matal na jaam yàlla ci xeeti xam-xam bu ne ci mu ci xeeti maqaama bu ne sëriñ boobu sang boobu moom moo jël kado kado kado bu toll ne Baye Modou Gueye mu wàcce ko fi ci Dakar mu nekk Moussa waxee léegi jërmeelul ndax su jërmeeloon bon mi du tasaaroo fekk ci alam bi su jërmeeloon du defar ay jaami yàlla yuy defaraate ci jaami seen boromi moo tax suñu waxee ne al waladu sirru abihi doom mooy mbootu baayam ñu ngi seedal yàlla ne baay moo duggee ci doom yooyu la bokk doomu Baye Ousmane la taalibe Baye Ousmane la jaami Baye Ousmane moo tax xéwal yëpp yàlla may ko ko ñi ànd ak moom xam ne yàlla def na ci moom xéwal ñu koy dikkal guddi di ko dikkal bëccëg di fa moo tax ñu jàpp bés bu toll nii yéen ne dañ koy dem ziyaara boo xamante ne dañ koy yaata ndax taalibi dana dem ziyaara ji moom rek kenn jëli fa jëriñ comme ni ko Baye waxee wa taatilul muridu ziyaarata qaalibil azmani fi qaalibil azmani dalilun qaatimun ala adami sidqihi wa adami izyadihi billahi wa rujuhi ila al axyaari wa ibadati nafsihi wa hawaa وفيها زياد المحبة baay mu ne war nañu war nañu war ci bépp taalibe mu moytandiku di neenal ziyaara gi sëriñam ci lu ëpp ci ay waxtu mu ne taalibe bu bàyyee dem ziyaara gi sëriñam rek dafay tegtale ne dëggum dafa tàgg ñi taxawal lii tey ziyaara benn benn yooyu ñu doon ziyaara ji dafa jëlee njëriñ loolu moo waral tey ñu ne kaay leen ñu def ziyaare boo xamante ne alat bi yëpp dinañ bàyyi ko ci barab bi fasante ko ñëw jërëñu si jërëñu si jërëñu si jërëñu si jërëñu si bokkuñ ci taalibe yi ne seen dëggu dafa tag ci seen sëriñ taalibe bu am loolu doo mën a taxawal lu mel ni mu ne itamit taalibe boo xamante ne da nga dem ba boo waay adduna yi xëcca ba mun a samp lu mel ni taalibe boo xam ne itam dafay dem ba jaamuwaat di jaamuwaat bakkanam bi ak bànneexu bakkanam bi waaye mu ne na ngeen xam ne ci ziyaara taalibe di dolle ndollal nag bu bëree rek su nekkee xol bi sell na nga yéene ko ñu bëree bëri loolu moo waral tey mbir mi rogalaat ba yàlla may ñu ko ci weeru koor may ñu ko itamit ci weeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon Baye Modou ñu ngi lay ziar dikki nañ fi nag nañ fi nag nañ fi nag nañ fi nag ngir ziyaare la yow ndax yow yaay góor waliyu yàlla yi dañoo wax ne waliyu booy ci ki sàkk wilaayam jarul ngay def tabarruk ci moom jarul ngay def imdaadaat ci moom jarul ngay def imstindaat ci moom ñun xam nañ ne bu baax a baax di nga si jootee ba léegi si kiwo moo tax sëriñ bi lim def ci yow loolu lott na pour jàpp di ko xam suñ ne kan mooy taawu Baye Ousmane fii ci Dakar ñu ne Baye Modou kon nga dem xool xool xool xool dëgg dëgg waliyu yàlla yi li ñuy def seen taaw yi mayu yàlla nag nañ seetaat sa wilaaya kuy bañ may yàlla nañ seetaat sa bëkkeel Baye Ousmane da daan wax ne may yàlla yi dafa mel ni ngelaw bi kenn mënul tere kenn sa morom nokki ku nekk rek li nga war a nokki loolu ngay nokki li nga war a dugal loolu ngay dugal li nga war a génnee loolu ngay génnee ziyaare si na ziyaare si na ziyaare si na ziyaare si na ñu ànd ak ay takk takk yu bari yu bari yu bari yu bari comme ni ko Baye waxoon ziyaaratu arbaabu tuqa marhamu yabri wa miftahul abwaabul hidayati wal xayr soo ziyaare góor yi ragal yàlla mu ne loolu pomaat la kuy saafara amul benn wëlu yàlla bu dul feebar da ngay feebar zahiran waaye da ngay feebar baatina waliw dina feebar ci xaal waliw dina feebar ci maqaama waliw dina feebar ci xam-xam mun nga ziyaare ji koo xam ne yaa ko raw fuuf sa feebar waro wirif mun nga ziyaare koo xam ne moo la raw fuuf sa feebar wéree fa mun nga ziyaare si koo xam ne yéen a tolloo sa feebar wéree fa mun nga ziyaare si koo xamante ne moo la raw fuuf sa feebar wéree fa moo tax bàyyi mu ne ziare ñu ragal yàlla yi pommade la buy saafara ndax li nafsi aybun lil fuhaadi aybun li ruuxi aybun laysa fihi bàyyi mu ne amul sikk bakkan xol ruuxu ñoo am ayib de comme jamono bu nekk yàlla lim la tracé lee ngay sangu chaque jour trois fois noonu la wëlu yàlla bi di war a sangoo ci maawul xëy bi chaque jour ngir lu laabal bakkanam ngir lu setal xolam. ngir lu sellal ruxoom loolu nag ci ndoxu Seexu Tijaan bi rek lay naanee tattahir bi maa el hay bi in kunta saa sirrin yow yaay sirru bi yaay sirru jotaay bi ñu ngi def tawasul ci liggéey bu barke bi nga liggéeyal si sëriñ liggéey bu barke bi nga liggéeyal say waajur bañ gërëm la nga nangul ñu ziyaara bi nga xam ne ndaw yi yëpp dañoo ñëw am ziyaara nga nangul ñu waaye mu ne it tamit dafay ubbi buntu jubi jubi jubi ku amul jub jamono ji doo doo doo doo texe ku amul jub jamono ji doo mucc te jub ak bàyyi mu ngi ci yow te awtu rabbi an ya umma haji ku la wara ba yàq bi tuuti sax naan naa yàlla motal jub gi may oote ba jaam yàlla yëpp di sant sama jëf. bàyyi mu ne ziyaare bi itamit dafay làmboo ubbi ay buntu yiw yiw yiw taalibe soxla nañ yiw bu ne sëriñ si soxla nañ yiw bu ne ci xam-xam ci am-am ci wilaya ci alal ci xaalis ci wér-gu-yaram ci kaaraange ñu ngi abbu làmmi ñu mbokki taalibe yi di la ko ziyaara bëgg na nga defal ñu istibdaat ndax wóolu nañ sa sakub taalibe wóolu nañ sakub sëriñ wóolu nañ sa liggéey wóolu nañ samp gi la sëriñ bi samp te doo daanu mukk ndax buur yàlla tigi moo la sax bu àdduna bi yëpp jógoon na dañ lay daane ñoom fa ñuy daanu kenn par kenn Baye Modou Baye Modou yàlla yàlla dëgëral la yàlla yàlla feeñte ak yow ci lu baax suñu yàgg na yàgg na yàgg na yàgg na lay fay lay fay lay fay lay fay ci kaw kaw kaw ci kanam rek kanam rek yàlla yàlla dëgëral la yàlla yàlla feeñte ak yow ci lu baax yàlla yàlla ci zahir ak ci baat yàlla bu ñu mel ni waxee waxee waxee waxee ndax Baye nee bindee àdduna bi bindee bi des yëpp dafa mujj bind yonent yàlla aadama ilham mbooleem bindee fi yàlla ne leen dem leen ngeen ziyaare ji ko ku daw dem ziyaare ji rek jëlee sa xet bu neex suñu rombee waa ji rek mu ne waaw yéen fi ngeen jógee mu ne ko yàllaa ngi bind melow doomi aadama boo xam ne di mel ci taar jéggi na dayoo li ngay gis bi ñuy def jëlewuñ ko foofu bi ñuy def amuñu duñ fa yóbbu waaye li nga gis ñu indaale foofu lañ ko jëlee mu ne ah foofu dara nekk amrihim yéene boobu mu yéene woon de fee dara newu fa a bi mu ñëwee yàlla tëjal ko wan ko ne dara newu fi fii daraa ngi fi ñun duñ jëy kenn buñ waxee suñu bànnee ko bakkan wallahi sëriñ bi def na ci yow bilaay sëriñ bi def na ci yow barke sëriñ bi def na ci yow xabul sëriñ def na ci yow kaaraange sëriñ def na ci yow nga nekk waliw boo xamante ne xaal nga waliw xaal xaal waliw dañoo bëri fas am na balaa ngaa jot ci meññet bi faw nga déggu jam-jami diggi na wali boo xamante ne si téeb la waaye yow sa wilaaya ji xaal xaal moom meññet yëpp ci suuf la da ngay tëdd di wit da ngay taxaw di wit da ngay sukk di wit da ngay jonkoon di wit loolu nag arab yi dañoo xam ne la sukura alal waajib ku def li ko war kenn war koo gërëm bàyyi mu ne la sukura illa sëriñ bi moo la defal loolu ñuy gërëm sëriñ bi waaye tam di la gërëm boo nanguwuloo nekk soxla su baax doo am loolu tey yàlla yàlla dëgëral liggéey bu sell nga liggéeyal sëriñ al wilayatu minnatun taqaddamat ha xidmatu Cheikh Tidiane mu ne téeréel al wilayatu maxtu minnatun taqaddamat ha maxtu xidmatu wala yëpp waxoon nañ ne wilaya may bu may la Modou yaa liggéey liggéey bu sell yàlla yàlla feente yow ci lu baax ziyaara si nañ la soxla istimdaat yàlla yàlla gën a dëgëral kàndoo gi yàlla yàlla gën a dëgëral kàndoo gi yàlla yàlla may la ziyaara bi ñu bés buñ koy def jaam yàlla yi di bàyyeekoo ci àll bi yëpp di ñëw di ziyaara si di xam ne dëgg dëgg liggéey waliyu yàlla amul perte xaqa xadri yomi daras وقد مفتي عند ماضي وقر حنان اجتمعوا رجال الغيب تحت قدائي فما قتلوا في الشرق والغرب فابدا إلى مكة إلى لزام سمائي تظاهر فيه الجاه والجد مزهر لرب إله العرش نعم ولاؤه

sëriñ bi nee na di wax jërëjëf Baye Ousmane sëriñ bi nee na di wax jërëjëf Baye Ousmane sëriñ bi nee na di wax jërëjëf sëriñ bi nee na ñuy sant yàlla bu baax baax baax baax di julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di gërëm sunu sëriñ Mawlaay Seydi Ahmad Tidiane mu ne di ziare sunu waajur bu jigéen ak waajuram bu góor mu ne ak mboolem xulafaaw Cheikh Tidiane yi nga xam ne ñoo taaral jotaay bi mu ne di nuyu Baye Daouda Diallo Baye Moussa Diagne Baye Pape Thiaw Baye Alaaji Seck Baye Ibrahima Ndiaye Baye Amadou Diallo Baye Ali Ba Baye Moussa Niang ak Baye Amadou Camara ak mboolem muqaddam yi nekk ci biir jotaay bi sëriñ bi ñu ngi ñaan yàlla nangu ñaan yëpp mu ne mboolem feebar bu fi waay andi yàlla na ko yàlla fànk sëriñ bi nee na nañ taxaw ci innama amruhu iza arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun mu ne bépp feebar bu waay andi yàlla dindi na ko mu ne ñàkk gi yàlla dindi na ko mu ne na ñëpp tegu ci yoon bi rek mu ne bu kenn jàmbatat yi mu ne ndax bàyyi ne nañ sant yàlla ci bépp xaal boo xam ne xëy nañ dajeeg moom mu ne boo santee daal mu dolli la mu ne dafa mos a dégg mu ne fan yi mu ngi liir mu ne muy liir ba liir ci benn abiyaatu Cheikh Ibrahim mu ne bàyyi yeg na ci bato di tukki mu ne bi mu wàccee ci dëkk bi mu tukki mu ne dafa ñaanal bato bi. mu ne bàyyi toog na. mu ne benn guddi ba guddi gi jeex. mu ne mu am ay mbégte yi mu am ci guddi googu. ñaanal guddi gi. mu ne mu tëdd ci lal. lal bi nooy. mu ñaanal lal bi. mu ne nga xam ne képp ku liggéeyal Cheikh Ibrahim. ala kulli haal di nga jox sa càkkutéef. mu ne ku dem bay ñaanal njanaaw yi di ñaanal objet yi mu ne bàyyiwul mbindaafoon yi nga xam ne ñu ngi ànd ak moom mu ne yàlla nag boo ko toppee da koy topp moom kese bañ ko booleeg dara mu ne lépp loo ko booleel koy laxasu ci loolu jeex ci loolu mu ne ba dootoo gisati loolu mu ne li ñuy dimbale mu ne nañ laabal suñu xol yi nga xam ne xol rek la yàlla tagg si jëmm mu ne loo si xajalul xaju si mu ne dégg nga waa ji mu ne ba mu waxee ne falam yàq ilallah laa sayra xayrawo wala sama mawsuulu wala sama bàyyi nu mu ne lépp loo xam ne lu tilim la bokk ci xol bi mu ne xol bi mu ne falam yàqa dara du fa desati illallaahi lu dul yàlla mu ne laa sayran xayroo mu ne moom la ruux di sàbbal ci biir jëmm mu ne te fan la nekk ci biir jëmm mu ne ci xol bu sell bi ci xal bu salim mu ne kon xol boobu su yàqoo jëmm ji yàqu na su bonee jëmm ji bon na su defaroo jëmm ji defaru na mu ne lépp nu munti mel bu sellee jëmm ji sell na mu ne kon nañ sellal tomb tomb boobu nekk ci suñu xol yi te yéenante jàmm bëggante jàppalante dimbalante volonté te fekk yàlla rek moom moo tax mu ne képp kuy def ngir yàlla bis dina ñëw yàlla rek moom moo lay fay mu ne képp kuy def ngir sa bakkan bis dina ñëw di nga rëcc lu taxoon mu ne lépp lu yàlla bind dina alko ba mu des jëm yàlla ji mu ne yàlla nee na kullu man alayna faan lépp lu mu biir day na raaf mu ne yàlla ji daal moom la àppoo mu kon ziyaare bi ziyaada la mu yokkute la mu yàlla na ngeen yokk balaa déwén amin yàlla nañ jot suñu càkku def amin mu li tax ñu def ko yàlla nañu ko bàyyi fay amin mu alal bi ñu ko jox yàlla na ko yàlla ful amin mu ndax Cheikh biñ ko laajee mu ne ki lay jox ak kilo la dul jox ku la gënal mu ne ki may jox ñu ne ko lu tax mu ne ndax képp ku la jox alalam jox na la xolam mu ne ndax xol boobu rek la yàlla tagg ci jëmm mu ne ku la jox alalam jox na la mu ne leneen li ñu mbokk taalibe yi di wax mu ne moom si daf waaram a ngeen mu ne te ko mos a wàcc ba yow mi diin mu ne xanaa daal Baye Ousmane jël bakkanam bi mu ne te bu ko jële mu ne moom dina ko kari feneen di ko xaar mu ne bu ñëwee mu continuer di ko liggéeyal mu ne moom rek la bëgg moom rek lay tiitaroo moom rek lay sagoo mu ne ndax li nekk ci moom moom moo ko def si moom. mu ne fan yii passé. mu ne bu tëddee ba def ay awlaatam ba pare. yàlla dimbale na ma ci koor gi yëpp. mu ne yàlla dimbale na ko ci koor gi yëpp. mu ne lu tëdd de sa kër di matee jotul. mu ne lu tax. mu ne ndax àndandoo yi muy àndal ci yàlla. mu ne bëgg na nañu barke. bëgg nañu am alal. bëgg nañu gudd fan. bëgg nañu wér. mu ne bëgg na mbooleem gàllankoor buy gaar nit ci àdduna. bu ñu gàllankoor. bu ñu yàqal. mu ne nañ tegu ci yoon rek. lépp loo xam ne bëgg na ko lépp loo xam ne yaakaar na ko mu ne su ko xoolee si ñun rek gis ko mu ne ndax mu ne ànd yëpp ay jeex ba mu des àndoo ci yàlla mu ne li tax mu ne mu mel nii mu mel mu ne daal Baye Ousmane moom moo meloo lu ko neex ci moom mu ne ñàkkul fayda de mu ne ñàkkul bopp bopp mu ne ku xam àdduna la li muy doxe li muy dundee mu ne képp ku moom ci ruqu maanaam mu ne wala ngay def loo xam ne boo ko defee safaan moo la ciy fekk. mu ne boo ñëwee toog moom. mu ne dina la conseil wax na nooy def. mu ne ba doo dal ci loolu mu ne sëriñ bu mel noonu yombul mu ne lii ci bâchement la ko doggee mu ne moom dafay jaaxle yenn saagam dem Kaolack mu ne bu demee sëriñ bi daf koy yebbil yebbil ko ba mu doyal mu ne bu paree mu jóg ñibbi si. mu benn bés nekk na ci oto di ñaxtu di dem Kaolack. mu ne ba mu àggee rek nuyu bâchement bi. mu xanaa xamoo ne yàlla. mu ne yàlla lépp lu mu def ci yow rek looloo gën. mu ne li mu dogal ci yow rek gën. mu ne kon nag looy ñaxtu. mu ne sëriñ bu mat sëriñ a ngi noonu. mu ne loo xam ne la ko waxee. mu ne mu ñëw fekk di ko si toogaayam. mu ne mu wax ko li mu wax ci oto bi. mu ne kon jërëjëf Baye Ousmane. mu ne mu ngi ziare Baye Hamza Dieng. di ko wax ne. lépp luñ fi wax. si maqaam lañ ko waxee. lépp luñ fi garanti si maqaam lañ ko garanti wee mu ne su jógee jàkk yow la yow la yow la yow la mu ne kon gëm na ne dina jag mu ne gëm dina am mu ne gëm na ne fi ñaan yàlla dinañ ko defal ci barki Baasmaan mu ne muy gërëm ñëpp mbokk taalibe min alif ila mu ne li ko déparé ci Baye Wax Baye Mbaye Baye Modou Diouf Baye Ibrahima Ndiaye Baye Ibrahima Seck mu ne ba ci bàyyi Mor Mbaye bii mu ne yàlla na yàlla fayante ak yéen ci lu baax. nii mu ne nii la ilal amaam. ko mu ne lii yene a ko tànn. mu ne biñ ko woowee ne ko na ñëw fekk suñu fii. mu ne dafa ñëw. mu ne dafa xam ne yëf yi defalu ko boppam. mu ne ñun ñoo koy defal suñu sëriñ. mu ne lii dafa am lu ko jàngal. mu ne keroog bañ tànnee ci xadara ba. jëlee Baye Ousmane Daaru Salaam andi ko ci xadara ba ne ko toogal ñu ziar rek mu ne kon suñ ko ko defalee defal nañ ko loo xam ne moom defal na ko sëriñam mu ne kon mu ngi sant bu baax mu ne kullu yow wa fii sami mu ne kon gis ngeen ne doolee ko am na mu daaw Baye daa ñëwul woon mu ne te ñëw na mu ne lii lii njaag moom mu ne ndax moo ko booleeg Baye Ousmane mu ne su ko neexoon mun na ko seetaan duñ bokk xaal duñ bokk dara mu ne mu force ko ba yóbbu ko ba ci Baye Ousmane ko Baye sa taalibe mu ne bi mu àggee li ko gën a yéem Baye Ousmane da laaj ana papaam ak yaayam mu ne xelam ne sëriñ bi dëgër na fi mu ne kan moo ko wax ne sumay waajur ñu ngi dund mu ne keroog lay yëngu ci basement bi mu ne di nga ñëw ci nit dina xam lan moo la boole ak moom mu ne moom xam na li ko booleeg sëriñ bi mu ne paako du ko gor jaasi du ko bënd mu ne puso sax mënu koo bënd mu ne noonu lay àndeeg sëriñ bi mu ne ñun nag loolu lañ fas yéene topp ndigali Baye Ousmane ba toog mu gërëm. mu ne te gërëm si jamono jii. mu ne wax na ko mu ne ko bàyyi. mu ne boo ko gërëmee bu ko gërëmee tey suba dina ko gërëmaat. mu ne ndax moom day def rek. mu ne lëpp lu mu sant lu sëriñ santaane moom ci la ne. mu ne te billaahi wallaahi wataalaahi. mu ne Baye Ousmane ko mos a fekk mu toog. mu ne mu saafir muy toogee. mu ne ndax dara am umbul bâche bi mu ne avant moo am ijaaza mu ne toog na xalaat xalaatam bu bon mu ne nettali na ko gaay bi mu ne cinq minutes la ci teg mu ne temps yooyu mu ngi yor téléphone Philips yi mu ne bâche man yoroon 582 82 xaw ma mu ne mu woo ko téléphone. mu ne ko Baye Modou mu ne ko waaw. mu ne ko Modou Gueye. mu ne ko li muy xalaat noonu. boo koy def ma lay bar. mu ne barki Baye Niass. mu ne téléphone war na cinq minutes moom ñemewul jël téléphone mu ne kon kooku sëriñ la. ku ànd ak kooku. dafa a mel. taalibe day roy sëriñam. waaye li mu fonk naa ko naa ko di ko nur dëgg ngir bëgg xam mu ne waa ji li ne sama sëriñ fonk naa ko naw naa ko di ko nuru dëgg ngir bëgg a xam mu ne su muy suy jàng ci taalibe Tijaan mu ne problème boobu mu ne bëri na li mu si jotaay mu ne dafa am lu muy jàngal taalibe mu ne taalibe day roy sëriñam ba mel ni moom mu ne boo royee sa sëriñ ba mel ni sa sëriñ mu ne koo dem du la laaj kan mooy sa sëriñ mu ne nañ xam ne yow mii sëroo diw nga kon yàlla nañu yàlla defal loolu mu ne kontaan na bu baax mu ne gars laaj nañ ko ndax xolam sedd na mu ne xolam sedd na guy alhamdulilah mu bu mu gisee taawa bi yëpp gis leen mu mu gisee xaritam yi Baye Daouda Baye Moussa Baye Ibrahima Baye Pape al set mu ne ñii nga xam ne ñoom ba ko doon doon mu ne kon nga xam ne loolu dëgg-dëgg mooy dëgg mu ne su fekkoon ne mbokk du ñooñu mu ne kon duñ daje fii mu ne di ànd ànd bu sell bi yàlla barke la ànd bi Baye Daouda mu ne jàpp na dootul bàyyi mu ne kon xam nga ne moom dafay jàpp mu ne ñaataat la ànd ak yow mu ne loolu mu defandoo ko mu ne demoon na ba kaw la ko dara mu ne ndax sopp nga sopp mu ne samedi mu mu jógee mu ne kabatoo njëkk a ñëw mu ne moom moo ko andi woon keneen a ko fa andi woon mu ne waaye mujj na si loxoom la mujj mu ne teraanga boobu yàlla boole leen mu ne waajuram bu jigéen xam na ko mu ne waajuram bu jigéen moom tamit xam na ko mu ne biñ nekkee atelier sax mu ne benn jour daal laale nañ mu ne mu ñëw ne ko waaw mu ne su ko dooree bët bët bi toj. mu ne wala nga door ma sama bët bi toj. mu ne mu dem nettali ñu ne ku la def li a ne Baye Daouda. mu ne moom it bu demee ñu laaj ko mu ne Baye Modou Gueye. mu ne gàcce dina a mu ne jàppalante mu ne boobu daal retaan la mujjee. mu ne boobu la ko jàpp ba tey. mu ne billaahi du la bàyyi. mu ne du la mu ne wax na ko fii léegi mu taalibe mu ne day nekk si jafe-jafe. mu ne demal nga seet ki la gën a jege nga ziyaara ko. mu ne toog na fii mu nekk ay jamono fay lu yaas métti yorul dara. mu ne 500 la yor. mu ne mu kalandoo ba yëmbal. dem ba wàcc mbedd faas. mu ne dox dem faas baaw seeti bàyyi daaw de. mu ne bi mu ñëwee. dafa ñëw ne ko maa ngi lay ziare ziare Sibdaat. ziare Topp. mu ne jafe-jafe la mu ne dama laa ziare si ngir jafe-jafe boobu. mu ne barki Bañes. mu ne bi mu ñibbisee si kër gi si la fekk xaalis si kër gi. mu ne kon li wax dëgg la. mu ne bu ko kenn jombale sa bopp nag mu ko ku am jafe-jafe dama nga ziare sa bopp taalibe mu ne def na ko Baye Moussa mu ne keroog dafa téye dog di ko ñaanal mu ne maa ngi ñibbi balaa maa àgg na faju mu ne dafa am lu mu gis si ñoom mu ne li ñu gis si moom moom moom la gis si ñoom mu ne ay soldaaru Baye Ousmane lañ ñuy liggéeyal Baye Ousmane lañ ñu ko bëgg lañ ñu ko tiitaroo lañ mu ne ñu am ngërmande Baye Ousmane lañ mu ne kon mu ne kon bu kenn xeeb li la yàlla defal mu ne bu kenn xeeb benn mbokk taalibe mu ne kii doog a jël wér na tey mu ne boo ziare ko ziare tibb mu ne yàlla dina faj aajo boobu mu ne taalibe da ngay dégg jamono bu rëy rëy baaxul mu ne copine ñee ko mu ne fukki copine bu ngan nganloo tamit ñee leen ëpp ñee leen comme nga xam ne rey amul njëriñ mu ne moom ni mu mel exception la mu ne moom sax dafa yéem boppam. mu ne Baye Pape Thiaw da koy woo ba ci sax ne ko maa xam laa yow nekkoo fi mu ne moom bëgg na fay ne de mu ne bëgg na fay ne de. mu ne bëgg na fay ne mu ne dafa am xaal boo xam ne su nekkee ci yow doo ci mën dara mu ne ni mu mel nii la ko yàlla bindee mu ne xolam bii mu ne benn kañaan nekku ci mu ne amul kenn ku muy kañaan yi barki mu ne bu fekkee añaan ci moom yàlla bu mu fanaan mu ne daraay kenn yéemu ko mu ne lu waay am dina ko am mu ne lu waay mel mel dina ko mel. mu ne moo tax du ñee kenn. mu ne ñaata at liggéeyul. mu ne sànce buñ ko jox mu woo Ousmane Kanté wala Mara. mu ne ñu woo ko dépannage mu ne Cheikh Wague demal nga dépanné. mu ne boo jaaxlee woo ma ma wax la noo koy defee. mu ne am na métier. mu ne su ko neexoon dem di engagé ay sànq mu ne dafa am lu mu tànn pour faj soxlaay jaamu yàlla yi mu ne kenn du ñëw këram mu ne te doo fekk ne kurus a mayoo mu ne kurus bu mu yore am na soxlaay jaamu yàlla bu muy faj mu ne te du dara ko defal mu ne da koy def ngir mu ne nit nekk na si jafe-jafe mu ne ñu tëj ko kaso mu ne mu woo ko téléphone mu ne si suba balaa ngoon ñu génne ko. mu ne ci barki Bageman lañ la. mu ne ci barki Bageman la ko amee. mu ne kon nag nañ jàpp te bañ a bàyyi. nañ bëggante te yàlla tax. mu ne jotaay bëgg na su koor gi jeexee. ñaari samedi yuñ teg yu ne. mu ne wala benn samedi buñ tëb bu ne. mu ne beneen bi nañ daje. mu ne suñ dajee daje yu mooy yokk suñu yërmande mu ne mu ngi gërëm ñëpp mu ngi ñaanal ñëpp yàlla yàlla ñu fekkee déwén amiin mu ne bu déwénee yàlla gën a yàlla mu ne yàlla yàlla jox zaahir ak si baatin aajo yëpp na ko yàlla faj ngëneel yëpp na ko yàlla mu ne kuy jóge na bees tàkk na beesaat tàkk ci mboolem aajo jafe-jafe bu am na ko fi wàññal bu ko fi wàññalee ngëneel dina ànd ak moom dem yal na ko yàlla def ànd ci barki Baay Yàlla bi muy muy gërëm Baay di ba jaay mu ne ànd naag Baay Amadou Camara mu ne bés bii seen bés la ak maali xalam ak zikarkat yi Baram Wade Ousmane Baye Malle Ablaye Gueye Mor Niang Mor Niang ak Ali Ali Diané ak Mouhamed Faye mu leen di gërëm di leen sant yàlla yàlla fekk yegg ci lu baax yàlla yàlla defal yàlla ñu bàyyi اللهم صل على سيدنا محمد وسلم abonnez sur kuñ fornome war ngay sant Yàlla ñun lay bigil gëstaloo doom sidi baram